asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lundi 15 juin 2020 ñëw ak njëgli kaay yi suñu làmb la ñuy xëy doore ko wala record wala leewtoo point net fu nekk daal Alioune Sarr mu nga fa xëy tey ñoom nag fa ñu jël xibaar ba mooy fa nga xam ne mooy ANPS ñoom ñoo dalaloon ki nga xam ne moo jiite lamb ji Alioune nag mu ngay wax daal nee na ci li am ba daal ak yàggaay wala ñàkk fee yàgg moom tekkiwul na mbir yi warta baax wala war naa baax nee na yow miy jiite di liggéey fekk yaa ngi gëm ne la ngay liggéey tege na ci aw yoon te yaa ngi koy man di ko teg ci aw yoon moom Alioune jàpp na ne mbir yi moom bu keroogee moom li am solo man du nga yàgg fa wala nga bañ faa yàgg nee na yow daal na sa conscience di tranquille ngay teg say mbir ca yoon nee na itam bañ a xool lu neex kii wala kële loolu lay wax mbirum arbitre tamit ñëw na ca nee na man maa leen sanctionné man Alioune Sarr nee na déedéet defuma ko de moo leen lijjanti sanctionné leen te nee itam amoon nañoo yoon woo xam ne mënoon nañ faa jaar dugal seen ay recours ngir ñu topp mbir ya ba tegewaat ci aw yoon waaye daal jàpp na ne moom sanctionné moom defu leen ko jàpp na ne tamit arbitre yi nekkul numéro yi ñu ngay am un million wala cinq cent mille ba tax arbitre yi jàpp ne loolu la ñu war am Alioune Sarr tamit ñëw na ca mbir yooyee jàpp na tamit ci mbirum retraite mi ne na quarante cinq ans moom moom Alioune Sarr de mooy wax ne na daal lu baree baree bari la moom daal daa jàpp ne mbir ma sax ëpp la def maanaam mbirum MMA ba tamit jox na leen seen wàll ndax jàpp na ne MMA moom bu ñuy wax làmb ci ak violence ne na kay xanaa MMA ba kon nuñ koy def jàpp na ne MMA gën a violence fukki yoon ak juróom lii di làmb ja moom Alioune mooy wax loolu tey ci yëglikaay yooyu muy record muy fa nga xam ne mooy sunu làmb wala Leewtoo point net bu nu delloo nag sunu làmb moom ñëw nañ tey ci ka nga xam ne nii moo di Balla Gaye numéro 2 la lion de Guédiawaye daal la ñu xëy tey gëstul ñu ko mel ni ki nag ka def loola mooy Iba Kane ñetti performance yoo xam ne wala ñetti mbir yoo xam ne Balla def na ko mu marqué carrière làmbam ba ca njëkk ne nañ performance ba mu njëkk a def mooy li nga xam ne ni mooy sept victoire daal Balla Gaye tegale na ko yoo xam ne ni 2005 la def lu mel ni ki noonu ñu ne déet ne waaye mu ñaareel ko ñaareel ba nag juróom benn victoire la teglante ca atum 2005 loolu la ñu yëgle kaay bi xëy tey wax nu ko waaye yemu ca de ñetteeli performance ba Balla Gaye 2 def mooy la nga xam ne mooy ca ba jàpp 2014 Balla tegle na ci tamit lu toll ci juróom benn victoire Iba Kane tey moo xëy gëstul na ka nga xam ne moo di Balla Gaye ka nga xam ne nag saasu ne ñu ngay wër di wax seen combat muy Boy Niang yëglikaay ba tamit xëy na tey ñëw ci gëstoo Boubacar ñang wala ba ak jàngatam Boy Niang ginnaaw bi nga xamee ne ni jël na ab defet ci digganteem ak Lac de Guiers numéro 2 maanaam daal fi mu nekk nii ak itam année balance boo xam ne parce que mën nañ ne am na ren maanaam fa muy jaar ba naawaat dellu place am yëglikaay ba xëy tey ñëw sampal ñu boobu laaj dinu ko laaj ka ko def nag mooy ka nga xam ne moo di Boubacar Niang dama fay jóge man dem fa nga xam ne moo di ca record record nag moom tey ka nga xam ne moom lañ xëy dalal Pape Camara nekkoon ancien footballeur ca jaraaf bu ndakaaru moo xëy tey di wax affiche yi làmbam la mu xam ne daal ne na Boy Niang 2 Balla Gaye 2 la jàpp ne combat moom du ko gën a màgg te nees mën a def ba mu taxaw nañu ko def papa yi wax ñu ne ko ak ban mu ne Malick Niang mu yoof mii ak rëg-rëg mu caaro yi dër bi lébu jàpp na ne loolu lu war a mën a am la moom Malick moom ma nga xam ne mooy pap mooy wax ñu ne ko ak ban mu ne Yékini Senior ma nekk ca Dóor waar mu Grand Médine ñu ne ko ak koy booleel mu ne Sa Thiès rakki Balla ma ca Géejawaay moom daal ñetti affiche yooyu la jàpp tey waaye loo ci mën a dégg yàgg maar leen dey tey ji saf na sàpp ci man ndax xiif naa ba yegg ca lool te ndey kumbaa ngi lekk ginaaram bañ na duma ci may yàgg asalaamaaleykum mbokki suivre Leewtoo TV ñu leen nuyu bu baax di leen ziar di leen jaajëfal comme ni ñu koy defee chaque jour dañuy ànd ak yéen si li nga mooy seen revue de l'arène ginnaaw Babacar defee revue de presse bi andi ñu di gën a fës ci yéen kaay dañuy daal di dem euh, fee nga xam ne mooy jàngat bi Babacar nuyu naa la. fay naa la Aïssatou fay madame Niang mbaa yaa ngi am jàmm. sant bu wér alhamdulilah. naka lënd bi. Ah, mi ngi nii rek. loolu baax na kon. <laughs> Babacar dañuy dugg ci waxtaan bi tey nag euh, journaux yi ñëw xëy ak ki nga xam ne ni mooy euh, Alioune ginnaaw bi nga xam ne ni mooy association nationale presse sportive bi dalal nañ ko ca WhatsApp seen groupe WhatsApp Alioune Sarr ñëw na tamit tey tontu ci li nga xam ne nag moom ba léegi nit ñaa ngi koy xaar départ am ak digganteem ak arbitre yeeg MMA beeg coow li nekk si làmb yëpp euh, Alioune Sarr ñëwaat na ci ci weekend bi. waaw am na solo trop ANPS ñu leen di nuyu waaw loolu am na solo waxtaan bi mu mel ni que nag bëri na lu mu waxtaanee ak ñoom. yaa ngi dégg xëy na nag ku jënd journaux yi moo xam na nga dem Leewtoo point net wala record wala sunu làmb di nga gis bu baax a baax la mu fa jot a wax li am solo nag mooy moom jàpp na ne yàggaay nekkul na da nga fi yàgg rek waroo def lu baax wala doo fi yàgg da ngay def lu baax moom gisul loolu dafa gis ne xay na nit ki mën nga fee yàgg te def fi lu baax mais ne ci sa conscience yow ngay liggéeyee waaw loolu nag moom mi ko wax xëy na loolu xam ne lu tax mu wax ko waaye solo daal mooy tey coow li bëri na ci làmb ji ci na fi toog na dem nangam sax waaye li am solo daal mooy tey moom mi nga xam ne moom mooy liggéey wala moom mi amee responsabilité xam na bu baax a baax li ko war li ci des nag dañuy bàyyi rek waaw parce que du suñu domaine waaw mbirum arbitre tamit jàpp na ne arbitre yi amoon nañu ay voies de recours bu ñu leen sanctionné yaa ngi dégg waaw loolu nag defe naa ne ci yoon bu yoon amee lépp lu ñuy sanctionné nit ku ne waras naa am yoon wu ñuy jaar pour recours mën a ay sa ba nga mën a génn jaar fa nga war a jaar parce que nit am na ay droit man nag diggante seen seeg arbitre yi man sa dama naan waruñu woon a yegg fii li tax waruñu woon fi mën a yegg pour man mooy arbitre yi dañuy risque chaque jour ñu ngi risqué di def li nga xam ne xam ne nekk di ci arbitrer waroon a waxtaan ak ñoom wala bu ñu leen exposé seen problème ko lijjanti ba nga xam ne duñu yegg fenn fi ba ay sanction ak yi yëpp di ci am parce que encore une fois dañ koy wax di ko waxaat bu la yàlla defee nga nekk kilifa jiite aw askan wala nga jiite ab groupe wala lu mu mënta doon del waxtaan ak ñoom aysa parce que gis nga communication dañu koy xeeb mais billaay la mooy doxal lu lu lu dox rek moo ko doxal mais boo ko néewalee yàlla xam ne yaa ngi def erreur boo koy yi di am yëpp manque de communication moo koy am moo koy indi quoi. ah bañ na bañ ne réeroo amul ñàkk waxtaan. voilà loolu la olof yi di lépp waaw parce que dañ na euh, garabu réeroo ah sémmiñul waxtaan a koy daanee te effectivement noon la demee boo feebaree boo ñàkkee xaalis boo soxlaa dara ak loo soxla ci àddina bi boo ko exposé nit ñi xam ko du faju kon wax am na solo trop waxtaan. boo wax sa jàngoro du faju de. ku lay faj ay sa noonu lay lay faj kay da ngay da ngay yor jikkooy bay rek bañ a dee ci ron lal bul nangu kenn rey la ci ron lal del wax. kay dañuy daal di jógee ci ki nga xam ne nii mooy euh, président dem seeti ki nga xam ne nii mooy euh, Balla Gaye suñu la am tamit euh, ñëwaat ci jaar jaaram ñëwaat ci li nga xam ne nii ak li nga xam ne def na ko ci 15 ans de carrière waaw mu mel ni kon moom boo xoolee ñetti performance yooyu yëglekaay bi tànn daa mel ni wane na ci boppam bu baax a baax a baax a baax mais nekk na defe naa ne loolu tamit moo lay wan ne bi mu dugsee ci làmb moom Balla Gaye ko xool xam champion jàpp nañ su amee gétt dana nekk champion te defe naa loola tey moom la prouvé ci làmb ndax la ñëw ci làmb ji tey boo xoolee ñu ngi 2020 mu mel ni 15 ans de carrière la def 15 ans yooyu nag dafa mel ni wax dëgg yàlla bu doon lu muy liggéey la ci làmb dañ naan tey li mu bareetul ndax dégg na ci roi des arènes daan na ci ay jël yoo xam ne ay mbër yoo xam ne ba muy bëre ak ñoom nekkul woon lu yomb si moom waaye tamit am na ci ay jafe jafe-jafe parce daal actuellement carrière am dama fi mu ko commencé ah lu doy doy waar lu leer a leer loo xam ne war ko ci ñi nga xam ne ñooy askanu làmb quoi. keneen koo xam ne tamit suñu làmb ñoo ci moom ah, muy Boy Niang ki nga xam ne def na dafa am défaite après mu toog ah, année bëriwul suñu làmb nag da tey jii day xool ban moyen la am. pour mën a relancer li nga xam ne ni mooy carrière waaw loolu daal moom booy ñag yaakaar naa ne itam booy ñàgg booy ñàgg booy ñàgg kon man day juum naa samay wax man moom booy ñaa sax laa wax. booy ñàgg deux la. booy ñàgg deux kon maa ngi jéeglu ñàgg bu nekk fële ca ñàgg man pour man booy ñaa bu pikin la ñuy wax kon li am solo daal mooy booy ñàgg moom itam ah na gën a liggéeyaat parce que itam bi mu départ yi ñëpp xalaatoon nañ ne mbër mu mag a la war a doon mais gis nga tey ni mu ay mbiram mujj a kon daal loolu lépp nag li koy indi mooy sporteur yi noonu da ngay yéeg di wàcc des fois kon liggéey bi daal ci am solo trop pour moom waaw ah, dañu dem euh, ba tey fële ci record euh, ab Ndour tey ñëw ak ki nga xam ne mooy euh, Pape Camara di ancien footballeur fële ci Jaraaf moom nag ñoo na joxe ay nekk ci football laa nekk taxul tamit nga bañ a suivre li nga xam ne nii mooy lamb bi nag nee na affiche am mooy Boy Niang 2 Balla ki nga xam ne ni mooy Reug Reug Malick Niang ak Yékini Junior Sa Thiès waaw Pape Camara yow ko football jaraaf Medina <laughs> dëkk Medina Medina ku ko wax wax làmb ay jaraafa xam nga Sénégal fii dama la naan amul sénégalais bu xamul làmb la ko commencé ci président Macky Sall ba ba fii ba ci suuf su tax mooy loolu suñu sport national suñu culture la ñoo ko moom day fekk nag xëy na am na ñoo xam ne duñ ko fréquenté mais terewul am na ñoo xam ne lu cay xam nañ yaa ngi dégg kon defe naa parce que boo gisee affiche bu mu ta affiche yi mu tànn nga xam ne kon xam ne lu muy wax parce bu la indilee Balla Gaye Boy Niang parce loolu ñëpp jàpp nañ ne bokk na si luy suqaliwaat làmb am na ñu bëri ñu koy wax xëy na am na ñu gis contraire bi mu indil la tamit ki nga xam ne mooy Reug Reug ak Malick Niang loolu derby lébu la bu fekkee bëgg nga derby làmb xam nga Yoff lay doon ak Caaroy loolu beneen affaire la Yékini Senior Malick ñoom tamit loolu day nekk ay benn romance par procuration xaw ma daal day am leen luy ne ci suuf ndax li tax mu wax la ko mooy da xool relation bi Yékini Senior am Lo Sa Thiès nekk yi rak amaat loolu ngay amaat quoi ndax bu keroogee xam nga ni Modou fu Yékini Senior teg tànkam dina fa teg tànkam te Balla Gaye mooy magi Sa Thiès loolu kenn du ko commentaire waaw ah, euh, fekk fa ki nga xam ni tamit euh, mooy euh, Eumeu Sène Leewtoo ñëwaat ci dix dernières années yi nga xam ne ni Eumeu Sène def na ko ci làmb mu daal di indi li nga xam ne ni mooy euh, quatre quatre victoires deux défaites ak benn nul ci dix ans sans compter nag trois saisons blanches. waaw mu mel ni kon dix ans yooyu daal xam naa ne xëy na am na satisfaction am na ci mais xay na am na ci loo xam ne ne xaw na kii daal parce que tamit ci dix ans nga am ci quatre victoires ak noonu nga ko limee noonu ba mu yàgg. mais ni tamit euh, parce que lamb ji boo xoolee année balance dafa am lu bëri lu mu yàq ci carré ci ci ci ci doxu mbër yi quoi parce que ñetti année balance dafa metti ci làmba bu keroogee dafay maanaam say performance mën na ko wàññi bu baax baax baax Eumeu seen nag tey ci làmba moom dama dama naan nekk na mbër bi nga xam ne tey amatul lu ko naan prouvé ko si làmb parce que benn bu dee longévité carrière maanaam carrière bu gudd macha allah yàlla may na ko ko te itam saa yu si làmb di nga doo xalaat ni kii liggéeyul saa yu ñëwee indi forme bu wóor nekk gaynde nekk jàmbaar kon dem yaakaar naa li ko dese rek xëy na mu gën a caravasé ñu fexe ñaanal ko yàlla mu am ay combat parce que loolu rek lañ ñam ñoom ñëpp ku ci ne a am combat bëri ne booy génn di nga génn génn bu neex daal. waaw loolu la ñuy ñaanal sportif yëpp génn par la grande porte parce que jamono ji mooy challenge bi nga xam ne ni mbir def nañ ko parce que tamit gis nañ bu nekk mujj yi nu muy mel baax. am na solo waaw moo tax ba nga xam ne itam loolu lépp li koy war a indi nag mooy yow mi nga xam ne yaw yaay ciy dugg fi nga war a bàyyee boo fa yeggee bu ko paase parce sport individuel la dafa metti làmb daa metti yaa ngi dégg am na boo bëggee génn par la grande porte moom des ah da xool sa bopp parce que ku ne yow xam nga li nga capable boo fa yeggee a xool su ko nag am nga entourage am ngay médecin am nga lépp boo waxtaan ak ñoom boo waree continuer xam nañ soo waree arrêté xam nañ. Hmm. loolu lañ andiloon ñi xam ne ñu ngi suivre seen revue de l'arène di di ko sa eh, yàlla musal leen musal leen ci jàngoro ji nga xam ne ni mooy corona bi yàlla gaaw jële ko fi bu ku nekk mën a dellu ci li nga xam ne ni moo say activité di nuyu ñëpp di béggee ñëpp Babacar waaw di kontaan ci ñëpp waaye nag tey moom ki may jëkk nuyu mooy borom Galsen 221 ah borom teraanga bi carax yi ma jox rafet na trop xam nga kooku moom kenn du moom nee naa ko Sénégal moom jaaykati daal bu ñëboo lal yi ah, jaayuñu daal yu am qualité di qualité boo ko bëggee foofu ngay dem ay soto fay waaw foofu nga demal ak yow mi sax am na say dàll Galsen 221 kenn du moom mention spéciale gis naa dal yàlla na sa jàmm yàgg boutique bi dem ba nekk ay boutique fu ne ci réew mi di Sénégal di nuyu waa Baobab yëpp parce que defe naa fa mooy base ba du du noonu la demee kon Baobab tey ñoom lay nuyu yarawate nag yaay daaru képp ku dëkk Baobab daal yàlla na sa jàmm yàgg xam nga Baobab amiin amiin xam naa ko mooy lan mooy guy guy ga kon noonu la fa demee nag kon waa Baobab man xam nga Baobab yàgg naa fay dugg di ambulant di jaay fukki jaay dem ba ci seen guy ga maa ngi nuyu seen maire Bart waaw di ko wax mention spéciale Barthélemy Dias xaw ma ko nag mais taxawaayam daal lay saluer waaw parce que nit da ngay am engagement tamit ci li ngay def daal loolu daf lay dimbali ci lu bare bare bare di Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm mu ngi añ te wóotewul xam naa da doon bàyyi ba ñu téye micro bi door a añ ñoo siis si añ bi ba suba ak jàmm allah